ñuy siyaare lu bari tey nuyu lu bari tey ndokkeel lu bari borom barab bii de Serigne si Ahmadou Mbacké xalifa Serigne Saliou yàlla na sunu borom àggale ay naalam mataleel ko ay mébétam te may noonu jariñu ci moom te ànd ak moom liggéeyam ci barkab Serigne Saliou ngi seere ci suñu bopp noo ngi sant suñu borom subhanahu wa taala xam ne tegu na ci barab yu bari waaye barab bi mu gën a tege nag mooy fekke gi mënu fekkeloo ak tal gi nu tal ak man gi nu man ndax fekke ak tal ak man néewul ci loxol kenn ku dul yàlla sunu borom subhanahu wa taala kon maa ngi fàttali sama bopp te di leen fàttali nan yittewoo yàlla te bun geesu adduna nañ jafandu te di ci diine te muy dëgg ci nun ndax diine kat laysa fiihi lubaabun wa xusrun li ñu ab saal ak xott amut ci diine kulluhu lubbun xaalisun lii loolu moo di diine suñ borom dafa digle daal di digge teg ca ku jëf ndigal la daje ak dig ba suñ boroom dafa tere tëkkoo teg ca ku jëf tere ga daje ak tëkkoo ba moo tax mu wax ci téere bi innama tuuxaduuna la aatin waxaat ne inna allaha laa yuxliful mihaada sunug sant suñ borom nag ci bisu tey jii di bisub kor am na laltaay ju wóor jox xam ne mees na koy teg ci alxuraanul karim ndax sunu borom moo wax ni fa man sahira minkumu sahara falyasumhu ku sunu borom fekkeloo weeru koor woor ko ku tawat wala nga ne ci tukki fay ko kon alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xam sunu borom may na nu woor ko nu di ko ñaan nag mu nangul nu ko te si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul mi nu yaakaar bind na ci weeru koor mbind yu bari te mbirum Serigne Touba bari gaak néew gaa ndax ñaari baatam yu ne jommal na fóore yu jëkk yi ak yu mujj ñaari baatam yu ne it manees déggee loo xam ne boo jàngoon téer yu jëkkee te jàngoo ñaari baatam yooyu doo ko ci xame bokk na ci ñetti bay doo xam dinaa ko jàng fii sahida xaaliqul wara li saaimin fii ramadana bi ridaaxul xaaimin mu ne sun borom dafa seere lañ la seere ñi woor bëccëg yi te taxaw guddi yi seere na ni baaxe na leen ngërëmam te ngërëmal sunu borom nag boo déggee dee su ko wax làmmiñ koy tudd waaye dafay lu rëy loo xam ne xaju ci kaw suuf moo tax ci biir téer bi ko fu ko sunu borom dee tuddee ma ngi koy jagleel ña nga xam ne dañoo nekkoon ca la mu bëgg ba faatu ba dugg aljana ngërëm la soog si mu tegaat ci weneen bayit nafu siyaami sahari fi daarayni yakfikum alhaarayni wannaarayni weer wi ñu jóge ku ko sunu borom may nga woor ko sun borom fegal na la ñaari gàcce muy gëdduna gu àdduna ak àllaaxira ak sawara àdduna gu àllaaxira tegaa ci weneen bayit xabatumullah ala sahri siyaam sa tadxuluuna jannatan duna iyaam yéen ñi jaamoo sun borom wooral ko weeram wii da ngeen dugg aljanna te du ngeen fa ànd ak lu leen di naqari wala lu leen di lakkal ci maru xol wala maru ak put kon alxuraan a ngoog waxi sëriñ tubaa ngoog weer ngoog yàlla na ko sun borom nangul kum jaaxalut itam doy nag jaaxle mooy tawat ji xew ba tax koo séen ko ne am lu mu ngaaw ci gimmiñam waaye tawat jooj day ko yaakaar sëriñ Tuubaa te yaakaar ga di dëgg ci yow waru laa tax a jàq waru laa tax a jaaxle waru laa tax a firfiri waru laa tax a dugg ci loo xamante ne bi mënoo ko ndax sëriñ bi de ba may sos dëkk bii lépp lu mu bëggoon rek ñaan na ko ci suñu boroom lu mu ci ñaan suñu borom it suñu borom may na ko ko te bokk na ca ñaanam ya wan fil wabaa wal balaaya kullaha xanha wa tayyib surbaha wa kullaha dëkk bii na nga fi dàq mbas akob nattu ñi fi dëkkee may leen ndox mu neex ak dund bu neex waaye sas na du nag sas woo xam ne daf koo sasoo woon ci jëmmam moom sëriñ bi sasaale ko ñam nekkaloon nu ñii ko ku fekke ñu ñu dunu nettali nag mu bëgg sas wooye ñu sasoo ko muy wal bi fii tusbitan fihi jamaatan a as xam alxamsa daban ya hakim saxaral ci dëkk bi mbooloo moo xam ne dañuy taxawe julli yi juróom kon xaw ma fu dee si faate julli waaye ku ko def biir tubaa def lu bokkut ak li sëriñ bi ñaanta la sëriñ bi ñaanta sunu borom nangul na ko ko kon yàlla nañu sunu borom may nuy taxawe julli tamu dinu ko nangul ba tey ci lii nu toll ci mbas mi am na lu nu ci gis loo xam ni ku ne na seetaat boppam bu ma nee nag ku ne seetaat boppam nag ki ñu yilif ak ko ko yilif ñëpp ci yem rawaati nag ñi nga xam ne ci wàllu adduna la ñuy yëngutu yonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne innama yarhamullaha min ibadihi arruhama sun borom yërmande mi ngi koy jagle yàlla ñi nga xam dañuy yërëme nit nag dana yërëm kilifaam waaye kilifaam yi dana ko war a yërëm te xat-xat bii xew dem mënta am dikk mënta am jaay mënta am jënd mënta am na ci yërmande dugg loolu teggeeku lépp loo xam ne science a ko indi boo dee tàqeek moom saw xel du ak te doo noppalu waaye lépp lu nu jaaxal benn gànnaay képp lañ am buñ ko mën a saafara mooy ñaan suñu borom ndax suñu borom moo wax ci téere bi udduxuuni astajib lakum ñaan leen ma may leen sallallahu alayhi wax ci hadiis ni adduxaaw silaahul muumin kon lan moo tee mbas mi xew nu jël wa kaana xaqan wala xadd karam naa xisnul labraar di ko xëye di ko gonte te ñaan suñu borom tàggale koog nun te buñ ko defee mu tàggoo ak nun ndax suñ sang ba sëriñ Saliou daana wax ne ñetti xasida yooyu day boo ci boole fas sa jaaba ji tàmbalee far farrij bi jaahil Mustafa han ummati yaa muxrijan habdaka saamin xummati sëriñ bi diggée na ci lu baree bari ci daf ak jalbu waxuma sax tawat yi rek waaye lépp lu jaam di bëgg rek ndem taxawoon ak ñeenti xasida yooyu di ko xëcc dana ca jot lu jaam di ragal ndem taxawoon ak ñeenti xasida yooyu te di ko jaañ loola dana ko sori tax nag bu su waxee ma de ni ma ko waxee léegi ki ñu yilif dana yërëm ka ko yilif waaye ka ko yilif dana ko yërëm àgg na ci moom sallallahu alayhi wa sallam di ko misaal ni irhamu man fi l ardi yarhamkum man fi sama loolu nag aw déggeen la laaj yow mi sunu sun borom nekk teg nga ne ca kaw boo waxee faaw ñu def maa buñ sëñ ca def nga teg ca yar ba waaye yërëmal ñi la féetu suuf taxa ne juróo leen jëndoo leen moomoo leen bindoo leen dundaloo leen doo leen rey doo leen dekkal doo leen fay kon loo leen def lu tub nawle rek juum loo def lu may ragal yàlla ca ñooñu itam daal di juum waaye nit nag boo ko dee yërëm juróom benn yëf yi da ci daje bu xiifee te nga mën koo jox mu lekk dina lekk bu raflee nga mën ko wodd na sol bu tawatee nga mën koo faj faj ko boo amee njàqare nga mën koo dimbale dimbale ko lu ko jaaxal loo mën a dox diggante moom def ko bu doyee de lompañ nga mën koo dimbale dimbale ko te dégg nag dafa neex lool lu wax bari bari bari dégg rek am solo dafa am lenn ci salaf salafu saalih yi ku amoon ab jaam jaam bi tooñ ko bis loolu la na xari ko lool mu ne kii de dinaa ko duma ba jaam bi yégee tëkku ko mu ne ko sun borom ma wax ci téere bi wal kaasimiina xay sax ñi nga xam dañuy won mer kooy daal di bañ a werante daal di ko ne kon nag kasamtu xaysi sama mer meeg yow won naa ko jaam ba ni ko yàlla ba mu waxee loolu yemu ca de daf caa teg wal xaafiina an naas yi ñi nga xam dañuy jàmmal nit ñi mu ni ko kon jéggal naa la mu ni ko sun borom waxee ba waxee lu yëmu ci de daf caa teg wallahu yuhibbul muslim mu ni ko demal kon goreel naa la kooku kon lam doon jàng dégg na ko bi ñu ko waxee nangu na ko jëfe na ko nu ñëw ci sunu sang bu sell bu tedd bii di Cheikh Mouhamadou Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadou Bassir lépp loo gis ci moom ci mbaax ko yiw di ko yéemu bu yaakaar ne bi jaaw baa ko booleeg moom ba muy ndaw ba te noonu la ma sa ñépp dañu koy bàkkee ni bëggul lu naqari kenn ndaxam loolu dëgg la waaye li muy bañ dëgg dëgg rek mooy lu naqari yàlla te lu neex yàlla rek ay yitteem yàlla ko fi suñu borom yàggal te may ko kon maa ngi wax ne fu waaye mën a nekk ci juróomi continent yi sa yëngut yépp wëlbati ko jëmale si ko ci Serigne tubaa ndeem bañ ngaa talu bañ ngaa réccu te nu dolli suñu yaakaar ci sëriñ bi taxa ne yaakaar yi am murit ci sëriñ tubaa du tas waaye yaakaar ji mooy lan nangoo sonn nangoo jaamu yàlla ndax sëriñ tubaa déetul ànd ak moom ci tayeel ak tayyi akuk bàyyandiku moo tax suñ sang ba sëriñ Saliou bayit wii néewaana bu mu dajalee mbooloo di ko wax te boolewu ko ca fadaxatan waraxatan lan yuusira sax suñ araada ay yakuna muusira ne ca la la neex ban bu séenée am la la neex nag ak waru la mba ak jayu tey ñu xam ne kuy ànd ak sëriñ bi da ngay fexe tàggoo ak i caaxaan caaxaan yi nag daa lëmbe réew mi ndajey daayira yi ndajey jàng yi ñuy géew ak yépp caaxaan daf cay bari te lu caaxaan nekk sëriñ Tuubaa bokku ca sëriñ Saliou dafa waxoon ne ku jëm ci yàlla day dëddu am po ba mu ko waxee tam dana ko leeral dafa ne xaqiqatul habasi kullu laxbi xad manahat minhu sariyatu nabi lu sarix aaye loola mooy am po kon al imaamu saafiyu borom ngir la donte noo ngi ci ngirum al imaamu Malik dafa am lu mu waxoon loo xam ne kam ko waxal di nit koo xam dégg nay wax dafa tawar ba yaakaar nday génn àdduna mu ne bu ma faatoo nañu wax diw na ma sang ba mu faatoo ñu woo diw ba diw ñëwee daldi ni waaw ana kitaabu taskirati kitaabu taskira nag ñun ñoo ko fonkut waaye mooy téere su ndaw soo xam ne la nga bëgg da ko cay bind yoreel naa diw nangam diw yoreel na ma nangam may naa diw nangam diw may na ma nangam ndax boo bëggee sa ginnaaw leer te woyof noonu ngay def bañ ko joxee kitaabu taskire ba mu xool-xool fekk ca mu yore borub juróom-ñaar fukki junniy dërëm mu ni kii kat waxutoon ma sàng ko ndox ma sàng ko ca fayal ko borom bii la xool kon fi may daaneel sama kàddu muy mboole nit ñi fi daje niveau bi nu suñ borom teg benn la néew mooy ak taalube foofa képpit fa lañ mën a rawantee taalube gi nag du dara lu weesu gëm sëriñ bi bëgg ko wóolu ko yaakaar ko te di ko jëfal waaye taalube laa ba noppi na la neex ngay xëy na la neex ngay gonte loolu amut solo nee naa suñ jotaay bi yàlla bég na ci waaye li ci yàlla bég bég bég nag mbégte moomee lu dul mbégte daf cay topp ndax ku ne xam ne li dajale fii kat suna suñu feddali la waaye bu julli farata agsi woon kat boo ñëwee fii doo fa gis fukkeelu li daje fii te farata joojee di sibaar di bëgg a ñëw moo gën a ñor yàlla junni junni junni yoon ci li nu fe dajee li am solo nag mooy nuy waxante dëgg tey fàttalante te jéem a fàttaliku te itam fu nu wàcc yoon wi ñu jéem koo dabaat taalibeb sëriñ tubaa du yaafuus taalibeb sëriñ tubaa du tayeel taalibeb sëriñ tubaa du bàkkoo dama firul ijji taalibeb Serigne Touba du bàkkoo damaa woyof diine taalibeb Serigne Touba day nekk jihaadkat bu dëggu boo xam ne day yemale bopp ak saaba yi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ñooñu day mësuñoo noppalu mësuñoo ne ci lu leen lu leen neex lépp lu am ci diine ñu ko xëcc bañ jot kon nag nu itam la sëñ bay jaxte daa wax rek bu kenn yokki bu kenn toqi na ñëpp wàq jëm aljana na nu yëngu jëm ci sëriñ bi te lu ñu jëf ñu fàtte ko loolu la naa tax ñu mën a jëfaat jëm ci sëriñ bi suñu sang ba sëriñ da daa wax ne gaal day laa yor lu ci waaye def ma dencal la ko du lakk du maxe du xuur di su ko sàcc waaye yomal xiyaamati akbar ku dugal sa loxo bii ci gaal gi yëngal yëngal génne woo dara bul ma yedd yaa ci defutoon dara wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu